sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nee na kuy wax ni bala ma ànd ak nit mu mel nangam say ànd du bari